lii nga xamante ni tey jii le jeune expliqué na ko fii léegi biñ juddoo ba léegi ci nii la et c'est vrai te jeunesse bi conscient nañu ba gis ne tey jii ñi ngi dund ci situation bu métti ba tax ñoom yemaleetuñu dara talatuñu dara lu dul lu leen tàggale ci mbalitu plastique bi kon tey li ñu war mooy sunu kilifa yi jël des engagements yoo xamante ni yu mat sëkk la jël des mesures sévères yoo xamante ni dinañu permettre ñu mën a xeex tàggaleeg sunu mbokk yi sunu littoral yi lii nga xamante ni moom mooy mbalitu plastique. tax ku ne xam na ni mbalitu plastique yàq rek lay def plage bii bokkoon na ci plage yi gën a rafet plage yi bokkoon na ci plage yi nga xamante ni ku mës a jóge sa kër ànd ak sa njaboot fii ngay xalaat tey plage bii doon na plage bi nga xamante nii kenn bugg fi ñëw ak sa doom te dara waralu ko lu dul mbalitu plastique bu bëri kon loolu tey jii bu fekkente ni mi ngi am. ndaw ñi juddu ci màgg ci tey ba jëlal seen i bopp seen i matuwaay état war na leen a mën a gëstu rawatina nag ki nga xamante ni moom mooy seen maire ñu ngi ko ci woo di ko wax ne ko vraiment engagement bi nga xamante ni jeunesse bi def nañ ko surtout sur la lutte contre la polition plastique vraiment ñu mel ni boo leen amee tey ñoom engagement bàyyi seen yitte bàyyi seen lépp di liggéey ngir lu jëmale seen gox kanam di liggéey ngir lu jëmale seen quartier kanam mais kooku tey jii

vraiment nañ ci gëstu waa yaraax li fi dugg ci ay projet fii yaraax kenn xamul nu muy toll ay projet wu beeda aan kenn xamul nu mu toll y a des centaines de yoo xamante ne nii bu ñu waxee ne def nañ ko fii de beeda beeda aan kon yaakaar naa ne bu ñu ko ci defoon li jóge na fi bu yàgg ndax engagement bi ma fi gis ci jeunesse su yaraax kon jàpp naa ne tey jii milliards yi ñuy wax bu ñu leen ci impliqué léegi affaire bi sotti mais bu fekkente ni da nga bëgg a saafara sama jàngoro te dooma laaj lu dul da ñëw def li la neex def li la saf dem sa yoon sama jàngoro jógoo pour saafara ko mais da ngaa jóg ngir duufal say poos da ngaa jóg ngir feesal sa poos dundee sama aalam toroxal ma posone ma moom moo la tax a jóg waaye jógoo ngir saafara sama jàngoro kon nag ñun population wu Sénégal ñi ngi ñaan ñëpp ni nga xamante ni noonu la ko réew adduna bi yëpp di defee di jóg di xeex contre la pollution plastique na ci ñëpp jóg bu kenn des ginnaaw ku jóg jóg leen ku jógul jóg leen ndax tey bu réew mi baaxee ñun la baaxal bu yàqoo ñun ñëpp la yàqul képp koo xamante ni da fay nekk di dundee nag alam ji na la leer ni bés a ngi ñëw di nga ko regretter ndax xale yi màgg nañ ah,